nga alpulaar yi moom yow looloo fa téye waaw yu bari ah daanaka pour nga gis leen ci bërëbu liggéeyukaay yi day day jafe dama yaakaaroon na benn korité moom yàggul waaw mais xam nga nag. bu laax yeeg ginaar yi. waaw yaakaar naa benn warta yàgg. looloo ko te dafa am nag yu mu muusal. ah dafa yu muusal muusal bi jeexul du du du xëy si. <laughs> moom Bijou Thiam daal xam naa mu ngi dégg. seen <laughs> fu mel ni Mamel ak Almadi. Eh. joxoñ ko daal eh, Walfadjri. <laughs> waaw na xëy si waat ci tool yi. waaw mu ngi lay dégg bon. am na ci solo. yal na ko yàlla yëkkati si jàmm jërëjëf amiin amiin waay amiin waay. Mm-hmm. naka eh, yite yeeg yu tey. sant alhamdulilah alhamdulilah. si ne namoon nañu lool sax naka diwaanu kafrin yaa ngi woon ca jàkkaarloo Euh, askan wi waaye nga korité rek ëllëg sa euh, nga jël yoon ci guddi korité gi sax ci lañ jël yoon wi mhm. ndaxte xam nga dëkk yooyu du fii waaw mm, daanaka ñu fi génn ay quatre heures du matin mhm. ñu ngi fa agsi daanaka ay onze heures waaw parce que euh, en tout cas daal dëkk la boo xam ne nii jegewul mhm. <laughs> parce que moom lañ naan maabo maabo maabo mooy dëkk Serigne Gueye waaw Serigne Gueye wala Serigne fekk baax waaw waaw foofu la foofu la ne xam nga maabo mu ngi nekk ci mu ngi nekk ci département bu bu mbir kii moom arrondissement la. Mm-hmm. te arrondissement bu daanaka mu ngi dajale lu toll si ñeenti commune ñeenti am na Ségéré Gatta. am na Njonik. Njonik am na Mbëlëm. Mbëlëm ak Maabo. Maabo ñeenti dëkk yi ñoom ñoo sekk arrondissement bu mm-hmm. Maabo. fan la émission bi doon amee ca bi doon amee. ca Maabo euh, waaw bu ñu naan saa su fi doy na ñoom ñoo ko doon mm-hmm. organiser. Euh, bu ñu demee nag ca Maabo suñu xel dafay daal di jëm ci benn kilifa. bu la sopp sax. Euh, kii kilifa la diine la. ca ca barab ba. wax dëgg yàlla sopp na la lool. jërëjëf sant wee ko yàq rek. waaw mooy Mouhamadou Moustapha Kane. Kane. waaw di xalifa sëriñ Moustapha Kan Maabo Maabo ñu ngi koy ziar ñu ngi koy xel bu baax a baax alhamdulilah nee naa ko sant bee ko yàq rek jërëjëf waaye ku baax la <laughs> buñ ko nuyu nag nuyu nañ Ahmed Kan waaw eh, mi nga xam daanaka mooy porte parole kër gi am na ci solo ñi ay ñu baax lañu mm-hmm. ay kilifa diine lañu waaw mm, nekk ca daara ja mm-hmm. waaye ñoom amuñu benn soxla lu la daara te ñu ngi safoo wal fajiri baax a baax am na ci solo <laughs> en tout cas bég nañu lool xam naa ñu ngi xaar sarica bi ci jàkkaarloo ko askan sarica bi moom mm-hmm. mooy daal li ñu mën wax daal mooy Ablaye bu ñu waxante dëgg mm. gis nga Saalum. Hmm. defal nañu président Macky Sall waaye Macky Sall delloowul xorom bi sax Saalum. ah bon oui. jafe-jafe nga fa la première fois mu dugg Saalum. Hmm, hmm. dugg naa fa dugguti fa. bari nga fa tànk. mais bu ñu waxante dëgg aussi neexul ba neexul waaye Saalum Saalum yi ñoom ñoo bëgg président Macky Sall waaye président Macky Sall bëggu leen. ndax jafe-jafe boo jëlee Saalum rek région bi la fa nekk ci ay postes ndombal tànk. ndombal tànk amul ci benn région bu mu am. waaw te ñoom saalum saalum yi mënuñu gis seen bopp ci état bu Sénégal dama lay jox exemple rek mhm. imagineel diggante mbir ci Birkilane jàpp Maabo mu ngi toll ci douze kilomètres douze kilomètres yoo xam ne nii ñun bu fekkonte ne ab yoon rek yoon bu normal kese la mhm. duñ ko def vingt minutes duñ ko def minutes mhm. mais diggante douze vingt kii bëri def nañ presque une heure temps ci yoon bi euh, tali bu yàqu waaye une temps ci yoon bi dama dem sax ba finalement dama doon xool ak sama chauffeur bi naan lii waaw ndax yoon wu métti yoon wu métti tar lool ba ma ñibbisi daanaka sama yaram bi dafa tëccu mhm. te pourtant chaque jour nga gis ay nit ñoo xam dañ koy baagante mhm. ci yoon woo xam ne guddare woon ne ko daanaka sax du du leen jaral dara euh, jafewul jafewul jafewul parce que dëkk boo xam ne nii lu toll ci ñeenti commune ñoom ñoo ko seq mhm, te man ba ma jógee mbir kilaan di dugg ci biir di di dem maabo xëy mën naa fa lu ci tollu juróom-ñetti dëkk yoo xam ne romb naa leen mu biro na ma tey ji yoon wi bu fekkoon defaroon nañ ko mhm. dëkk yooyu mën nañ fa jaar suqali ko parce que tali dafay suqali ab dëkk waaw surtout ça dem dikk rek askan bi di leen seetaan te gën a métti seen ministre yi mhm. ñoom ñooy nekk ci plateau yi di wax rek waaw Abdoulaye Sow façon plateau bu nekk ma nga fa di ngal-ngali mhm. di wax rek bu ñuy wax da nga yaakaar ne ñoom ñu ngi ñu ngi liggéey seen dëkk alors que boo demee seen dëkk da nga xam ne ni ñuy def fa tous non c'est vrai Abdoulaye Seydou Sow. Seydou Sow le ministre. fii ngay dégg mu topp ci plateau yi di ngal-ngal yi. du wax rek mais mel ni ku takk rajo quoi moom tey jii boo leen dégg ci plateau yi ñuy wax da nga yaakaar ne mais ñii moom boo demee seen dëkk gongo. Euh, Kaffrine boy. <laughs> mais boo duggee ci biir dëkk bi da ngay sentir benn pauvreté bu jéggi dayoo ci biir dëkk bi nekk ci Dakar gi rek dañu rey. Mhm. mais li gën a garaaw mooy ka fi nekk taan wuyoo ne moom kër alaaj kër kër la dëkk kër paate. Mhm. kër paate waay xam nga kër paate. Mhm. le la culture. waaw euh, Aliou Sow. <laughs> moom Kër Pathé chaque jour nga dégg ko mm-hmm. muy bàkkoo Kër Pathé. mais yow naka nga mën a nekk am ministre de la république dëkk ci ab dëkk juddoo fa màggee fa. Mm-hmm. say ti bàyyi juddoo fu màggee fa. mais balaa nga dem ba tabax tabax dafa tabax sax ab palais. Mm-hmm. mais fexeel ba ñu fa dëkk ak suñu ñu tabax ay tabax. gis seen bopp. mais ba ma ñëwee dugg ci dëkk ba gis ko mu tabax ab palais. Hmm? te lu ko wër yëpp di ay néegu ñax mais dama pis kii mais kii moom ban façon nit la. Hmm. naka nga mën a nekk am ministre de la république nekk ci ab dëkk. nga juddoo fa màggee fa. ngay dem ba dafa tabax palais alors que yu la wër yëpp ay néegu ñax la. yéeme na. Hmm. yoon wi nga xam ne ni yow d'abord ku génn rek ku jëm kër alkar kër patri yow lay jàkkaarloo chaque jour nga di fa dem. Hmm. lan moo la tere yow nga jël ay matukaay pour jéem a saafara yoon woowu ah, la. mais dara la jàmbat ko ci état c'est que ministre Macky Sall yi jàppale wuñ président Macky Sall. Hmm. c'est que ñoom bu ñu ñëwee Dakar rek la ñuy yem topp ci plateau yi di wax rek mais boo leen fekkee seen biir localité da ngeen di xeeb ndax defuñu fa xaala wala kasiram te te bu weesoo taliba jafe-jafe yu bari tënk na gox ba ak bëri ay gox yoo xam ne amuñu courant hmm? am na ci ay gox yoo xam ne seen poste de santé yu tur le waaw tur tey jii boo demee Maba arrondissement la waaye ab gros village la amul dara lu fa am xale yi xëyuñu insécurité boobu am jéggi na dayoo Saalum ci boppam laa la wax du Maba kese mais li xew ca Maba moo xew ci un peu partout ci biir Saloum. ci tund wi yëpp wa. Mhm. te tey jii boo xoolee diwaanu Kaolack la fa nekk ci ay ministres kenn xamul nu mu toll mais amu ci kenn koo xam ne defal nga askan wa. te li ma ci metti chaque jour bu ñu ci ay élection askanu Saloum yëpp wëlbati ko daal di watal président Macky Sall au nom de quoi. mais nit ki balaa nga ko bëgg day fekk mu bëgg la. Mhm. yow naka ngay toppee nit ki rek bu ñu waxee nga naan man du ànd ak du ànd ak du na fekk mhm. amee Saloum di benn bastion boo xam ne dafa nekk ci ay doomu aadama kenn xamul nu mu toll mais mënuñu fexe sax ba am benn piste bu baax benn yoon wu baax woo xam ne askan daañu mën dem daañu mën di dikk mm-hmm. xoolal yoon woowu ma lay wax tey jii yoonu mbir kilaan boo fa jaaree mën ngaa génn Ndofane mm-hmm. boo fa jaaree mën dem Nioro boo fa jaaree mën ngaa jëm ci dëkk Maam Jaara Buso bi Poroxaan mais ñu toog di seetaan population bi fu mu toll nii gis nga Ablaye mm-hmm. gis nga distance wu vingt euh, xam nga vingt kilomètres boobu le waaw bu nawet jotee. Mhm. distance bi day mujjee wëlbatiku nekk distance quatre-vingts kilomètres. non non kenn dootu fa kenn dootu fa jaar. dootul neex a te wëri ba sax day jafe. te ministre Aliou Sow foofu la dëkk. Hmm, waaw. nee nañu ma chaque week-end presque ma nga fa. kooku ban importance la amal waa Mabo. Hmm, hmm, ban importance la amal. Aliou Abdoulaye Seydou Sow mi nga xam ne chaque jour mu ngi ci plateau télévision di ngal-ngal rek di wax rek. ndekete moom boo demee ci dëkkam bu def fu tus. xaaral wala kese def ko. dañu ne ceeb ak diwlin bi ñuy jënd ñu daf ñu amal importance ñu amuluñu bi ñuy jox amuluñu importance ñun bëgguñu ceeb bëgguñu diwlin ñun li ñu bëgg mooy suñu cadre de ko defar gox bi defar gox bi Ablaye boo duggee ci àll bi sax xol day naqar yi man bu ma duggee ci àll bi damay métti yi dafa am lu may métti yi dafa mel daal Sénégal daal dakaar la yem ko woon milliards yuy jël yëpp ñu ngi ko jël yemale ko Dakar mais àll bi moom bokkuñu mm-hmm. àll bi mooy Sénégal mais ça c'est jamais vu Dakar tuuti na ci Sénégal c'est mhm. lii kenn mosu ko gis. am na ci solo waaye nag lii euh, njàngat gu yaatu la dina xëy na. gàggante am na benn élément buy euh, gars yi di jàllale ci TikTok bi benn góor guy wax ba si yàgg ne suñu dëkk bi amul. Mhm. mu jékki-jékki di yooy di yuuxu. waaw waaw ci émission ba la woon. góor ga dafa jékki ji wax rek commencé yuuxu gàddu tooxam di jooy ci sa émission bi ci émission wala ko di ko ci TikTok di ko wërale xam fu ko jëlee ah na góomu am na lu koy metti am na soixante-dix-neuf ans waaw waaw nee na bu bi amul dara lu fi tey ji seen maam yi nga xam ne jeewoon nañu depuis jamonoy Blaise bu ñuy dekk waatoon dañuy waax bu dugg seen biir kër ndax dara soppeeku fa waaw kooku yërëm na ay pourtant seeni ministre ñooñu nekk fii rek topp ci télé plateau télévision yi di ngand ngandulu di wax journaliste yi wër leen. Hmm. ñuy ngale ngale te fekk la ñuy wax dara du ci hmm. dara fen rek yàlla astafurlah ñu baal ma soxal ji. lu wax lu ñu wax dara amu ci. Hmm. waaw liggéeyu lu dara seen localité. dara naka nga mën a nekk un ministre de la république. nekk ci ab dëkk. te chaque jour bu ñu waxee man kër parti laa dëkk. wala bu ñu waxee nga ne man Kaffrine laa dëkk. adoo ah, ko yow kër fi nga dëkk. kër parti ba nga dëkk defoo fa dara hmm. xaali wala kasin defoo amal njariñ euh, gox ba dina ci am solo lool jombul ñu ngi ñuy déglu euh, bi la yoon daañu jël matuwaay ngir suqali seen gox ndax kuy wàlliyaan sa dëkk tegut euh, fexe ba ndukumaan ne boy jafe-jafe askan waa ci wàllub dundin ak nekkin wallu dem ak dikk mun am saafara te gëm naa ne émission jàkkaarloog askan wi ñoom bu ñu jàkkaarloog wal fajiri daañu xam fuy metti ca dëkk ba émission bi yaa ngi koy togg kañ lay daw non dina daw mardi mbégte la ci man. moo tax des fois damay naan bu ma di dina sotti léegi. am suma kàttan bopp dina sotti léegi ne nii. di nga mën a dem ci yi doxali waaw waaw. Uh-huh. parce que yenn ministres yi foog ñu leen di tiñal. Uh-huh. ministres yi yore seen costume yi nekk ci dëkk bi di ngal-ngal yi di wax rek. foog nga leen di fekk seen biir dëkk di wane seen dëkk. Uh-huh. wax na ne ki nekk ci télé partout plateau télévision yi di wax. ngeen yaakaar na mooy waaja boo demee ci dëkkam lii moo fa lii la fa lii mu am ci dëkk bi il est temps à ce que vraiment ces politiciens là ñu mais mm-hmm. askan wi leen ba ma demee ba ba ma demee ba ma demee Kassas. Kassas ba ma demee Kassas. Mm-hmm. Kaffrine problème boobu fa am. waaw ma dem ci ci kat. ci kat booy ngeen. dëkk ma Makumba Diouf suñu xarit bi. waaw euh, Lat Menge. Lat Menge Lat Menge. ci kat fa la ne. Mm-hmm. ci kat booy ngeen. yow mais ba ma ñëwee bu foofu ba ba ma duggee ci kat ginnaat. jéem naa sax jéem a. <laughs> suñu xarit la Makumba xarit ku baax la. waaye bu ma génnee mais après dama génne dama ko xeeb. Mhm. gox ba tuuma non dama ko xeeb. li tax ma xeeb ko mooy bu ma comprendre Macoumba Diouf chaque jour nekk ci plateau yi di wax rek. Mhm. alors que man bu ma demee dëkk dama sidéré wu. dama ne ko ku ma xool lan mbeng nii la wax nii la am du ma ko gëm. Mhm. c'est que nit ñi dee fois da nga leen jékki-jékki ñu jëfante ak ñoom nii nga yaakaar ne ñooy waajo mais il suffit que nga fekk leen seen biir localité rek nga xeeb leen ah, naka nga mën abe ab lendemain nga ak la fa nekk ci ay dëkk nee nañ xaw ma nangam ci ay dëkk rek ñoom lañ ci électrifié ah. gis des yëpp amuñu ay électrification amuñu amuñu courant naka la ndaw nekk yow di dem di fii si Ndakaaru mhm. di laxas ay oto wala di jaay ay dàll alors que yow nga nekk directeur de l'horticulture mhm. lan moo tere def ay financement pour que population boobu nekk nga téye fa. delluwaat mbéyum noor gi. amul lu ñu seen ndax ndax boo jëlee Latmingué diggante Latmingué ak Yorodu Kër Mor Souté Caaxo Mati Caaxo Séri ba ngay dem ca biir daanaka dem ba dikk ba jafe na lool amuñu yoon bu baax te tamit euh, gàllankoor gox ba bokk na ci ñàkkum ndox ñàkkum courant. ndox moom waxatuñ ko. nga xam nga li gën a garaaw ci àdduna. Mhm. dañ leen fa defal benn facture benn facture forage. Mhm. boo xam ne nii daanaka liñ fi dugal ci àll kenn xamul nu mu toll. Mhm. mais forage ba population bi duñ ko naan. Hmm, ndox ma xam nga lan moo tax duñ ko naan. Hmm. dañuy gis ne ne forage bi ndox mi maanaam weñ ci weñ bu muy jaar. Hmm. weñ bi muy jaar. waaw weñ bi weñ bi muy jaar. waaw dafa xomaat. weñ wi ndox mi di jaar. wóorut dafa xomaat. ñu ñun ndox mi kon bu fekkente ne moo def weñ bi tey ji bu duggee seen xol bi fan lañ jëm. mun na sax vraiment xam nañu obligé. dañuy dem ci tool yi. dañuy dem ci teen yi di rootaan. sayaan yi. ci sayaan yi di mm-hmm. Mm-hmm. ak fu ñi am mooy dem ay ay ay pour mën a mm-hmm. jamono ji fi mu toll tey jamono léegi nag ñoo ñoo fi nekk di rey di tàngal. maa ngi euh, bu ñu génnee. Saalum nag foofu ñu leen di euh, <laughs> foofu am na am na ci solo ñu. mu ñu topp ci plateau télévision yi dañuy ngal ngal yi. bu ñu ñëw ci plateau télévision yi nga yaakaar ne ñii ab grand sëriñ lañu. waaw. journaliste yi daal aussi journaliste yi a jouer seen rôle aussi ab journaliste mënoo jékki-jékki invité ab artiste rek mu nekk télévision bi di ngalgari rek quoi di wax fekk source il faut que leen di gëstu ñoom lan naka lañ nekkee localité parce que yomb quoi mm-hmm. troisième mandat mm-hmm. noo gise parrainage mm-hmm. noo gisee président Macky Sall ci cadre yi mu wax mais loolu amul ñu importance li ñu amal solo mooy cadre de vie lan moo tax tey ñoom journaliste duñu wàcc ci terrain bi mhm. dem fekk ji population bi au fond fond de leur localité def ay reportage daal koy indi su ko defee ñu xam ne mille sangarkat la mu wax ak li am c'est diamétralement opposé mhm. mais c'est dommage que léegi ay journaliste de salon la ñu am. man goog euh, Seydina Omar Ba. ay journaliste de euh, salon ah, kese nga fi gis léegi. taxaw journaliste de salon kese nga fi gis léegi. amul ci kenn koo xam ne nii am nga audace dem ci medd bi dem nemmeeku ci population bi xool lu ñuy dund su ko defee nga jël daal koy teg. jërëjëf euh, Seydina Omar ma uh-huh. xool day metti. man goog. Uh-huh. te ñun journaliste ñu nekk fi di leen def ay promotion. ñoo xam tekkiwuñu dara jërëjëf euh, Seydina Omar Ba. duñu dara ñoom politiciens yi. jërëjëf xam naa jërëjëf xam naa taxaw seet. fekk leen seen biir localité nga xeeb leen jërëjëf. mangoog xam naa taxaw seetlu gi jëmoon ci gàggante leen euh, ñaax leen ñu xam la sasoo ak seen gox xam ne euh, gox baaleen leen fal te yittewoo nañu ku leen taxaw saay su ne euh, ndax ndombal tànk day jeex waaye nag lu dul jeex mooy gox bi nga fekk baax ba tax na taxaw seetlu geeg njàngat gi jëmoon ci gàgganti leen soññu leen ñaax leen ñu fexe ba dooleel seen i gox suqaliko ci anam yu mucc ayib bokk na ci tamit ñu génn maabo ca Saalum Matam dikkaat fii ci Ndakaaru dugg Thiès ba Fatick njiitu réew Macky Sall Fatick la yeewoo Idrissa Seck yeewoo Thiès ñu tënk woon ci Mburok Sow Mburok Sow ma mujjee naa tuuru euh, ndax euh, diggante beeg fu mu mujjee séntu woon nga ko. <laughs> Mm, ñoom ñaar ne woon naa la ne ñii euh, dañuy teg diir rek. ci kaw mm-hmm. bi. Mm-hmm. mais nga baalo mais Idrissa Seck moom. Euh, il faut que ñu wax ne moom ban façon nit la. avenir ci politique am. non muy amee avenir te aussi. Hmm. politique mu mënta am avenir politique. yow koo xam ne yow xaalis moo la yitteel yow koo xam ne ndombal tànk moo la yitteel yow koo xam ni ne problème askan wi nekk lu la ñor. Hmm. mais kooku fooy amee avenir politique. Hmm. dégg naa bërki démb benn waayam dinaan xaw ma ñun Idrissa li ko taxal jóg mooy population bi Idrissa Seck bu mu fi nekk ba léegi lan nga mës a gis mu xeex ko jëmale ko population bi. lu may ndomboy tànk ak pouvoir kese. moo tax bu ma ko déggee mu naan dafa moom mooy chef de l'opposition mais Idrissa Seck kan la yàpp <laughs> kan la yàpp moom bay nekk chef de l'opposition yow 2019 Sénégalais jaf la jox la loo xam ne daanaka def la bett sax ñëpp am ci yow yaakaar nga jékki-jékki daal di dem fekk ji Macky Sall subooro ko dem jébbalu ci moom nga dem ba élection yi des un an nga génn da ngay réclamer chef de l'opposition xanaa kii daf ñu yàpp nga yaakaar ne mënut a am doole ci ah. mën na ko am kàngam la ci wàllu politique non mën na ko am tax te tax mën na ko am politique tax mën na ko am parce que sénégalais ñoo xamul fu ñuy teg seen tànk nga baal ma ci wax ji hmm. ni ma ko sañ a wax hmm. ñun sénégalais ñoo xamul fu ñuy teg suñu tànk ñun ñun sénégalais ñoo yaakaar ne ni ñun moom du ñu ànd ak kenn ku dul nguur ñun sénégalais ñoo am benn responsable boo xam ne bañ ko falee lañ ko gëj teg bët hmm. ci élection présidentielle lañ ko fas yéene gisaat mu dugg fa dañu indil ceeb dañu indil diwlin di jox ay 30 000 francs di koy wateel ñun ñun sénégalais yi la léegi bu ñu paree bu ñu ko joxee ñu bëgg ba noppi dootuñu ko gisaat lu may élection dafa ñëwaat ñun moo tax ma ne la gis nga seen ak Idrissa Seck bu ñu bett bu ñu xëyee benn bis ñu ne nekk na président de la république wala nekk na aussi euh, euh, nekk na deuxième ci élection yi bu ñu bett parce que ñun sénégalais yi ah, ah, am ñu gis ne diggante am ñu bu ñu demee ba nga xam ne nii ñun sénégalais yi amatuñu conviction mm-hmm. bu ñu demee ba nga xam ne nii fu mu toll ñun suñu suñu suñu carte dañ koy jaaye bu ñu ba nga xam ne ni xaru laadum sax moom moo ñu gën a seer ñoom politiciens si la ñuy sukkandiku pour jàppal ne ñoom war nañ mën nañ am base politique man ko yenn saa ñu ne moo tax doo leen gis doo leen dégg dañuy bàyyi ba élection yi jub suñu dugg si population bi mhm. parce que nee na population yi nekkuñu ñu ñuy campagne bi dañ di jënd man ko euh, loolu tax ah. loolu tax ñu bari jàpp ne sénégalais mun na euh, mun na folli waaye mun ta fal euh, tey jii dëkk Macky ñu bari jàpp ne xëy na baara yëgoo la combine la deal la ban nga ciy tànn waaye deal la Mm-hmm. yàgg naa nekk di li mu wax parce que boo xalamal président Macky Sall mm-hmm. la nga doon xarab président Macky Sall yëpp da nga ñëw daal di mm-hmm. wul jam ñaajo tey jii ngay dem bay xalamal président Macky par rapport ak réalisation yi fa nee tey jii bu mu fekk ji waatoon sa yaay xaw ma lan danaa ko wax ne ko tu as bien travaillé Abdoulaye Wade lay jéem a imité te Abdoulaye Wade du moroomam nga xam loolu mais mais mais léegi mais mais dans tout ça euh, li tënk lépp njabootu liberal est léegi léegi léegi mooy li ma la wax. amul amul pexe li ma la wax li ma wax keroog te du ko dara du ko deñ du ko dindi. na ma ne ñoom ñu ngi nekk di togg loo xam ne bu ñu deful ndànk ñoom opposition bi daanaka du ñu gis buy. la preuve mooy que fu mu toll nii paysage médiatique bi accaparé nañ ko. waaw ngay. doo xëy te dégguloo ñu naan déggu ñu naan Karim Meïssa Wade. Mm. Idrissa te ma la wax ñëpp kenn ku ci ne dangay nekk candidat daal kenn candidat candidat ci élection présidentielle. Mm-hmm. Idriss Seck dafay nekk candidat Karim Meïssa Wade dafay nekk candidat. parce que dem Karim Wade nee na moom kenn du du nangu. Mm-hmm. bi. tout à fait soppi ko. article vingt neuf trente trente et soppi. Mm-hmm. parce que élection yi des na. nekk guñ ci six mois les élections moom Karim Wade mën a bokk présenté moo tax waa coalition Benno Bokk Yaakaar ñu ci mel ni waa parti socialiste bu ñu defu ndax ñoom ñooy loolu les grands moo tax instant bi ñoom war nañ wax seen waxtaan seen biir jëm retrouver wu s'il le faut sax ñu ngemb Khalifa Sall mi nga xam ne man d'accord ma sax mu nekk candidat lu tax Khalifa ah, waaw mais caisse d'avance yi nit nit nit kooku wartul nekk candidat wartul nekk sax président de la république mais jël keneen ci ñoom jiital ko au moins parti socialiste mën a dund waat tëdd mais la nga xam rek mel ni ay boutique mbagg ñu la di yóbbaale rek gis nga li ma lay wax nii gis nga tey ji bu ñu deful ndànk hmm. ñoom parti socialiste ñoom socialiste yi boo nee socialiste mooy AFP ak ñoom seen hmm. ñoom ñooy doon les grands perdants parce que ñoom libéraux yi ñu ngi am lu ñuy togg ñoom te la ñuy togg ñoom ñoom yëguñu tinuñu te ñoom ñi bala fi wax yëpp kenn ku ne da nga nekk candidat parce que président Macky Sall dina changer code électoral bi permettre leen a ce que vraiment ñoom ñu mën a présenté taxawal askan wi ndax askan wi bëgg nañu changement. Mhm. wala askan wi dañu bëgg continuité. tout à fait mangook mhm. loolu si ñoom la euh, ñu ngi lay jaajëfal waxtu wi xoj nañu bokk na ci tamit li doon waxtaanee tolluwaayu réew mi ci wàllu politique. Euh, ni nga ko waxee daanaka noonu la journaux yi euh, xëyee càmbar jàpp ne a Seck day sànku ci wàllu politique fakastalu na ci. sànku waxuma waxuma day sànku de. Hmm. dégg nga mu wax. na bañ a sànq aussi. ci wàllu politique ndax Sénégal lañ ne. ndax borom yi pexe la. Ah, bu weesoo borom pexe mais Sénégal lañ ne. Mhm. nga Sénégal bu fekkoonte ne dem nga dans les plus grandes démocraties chef de l' kenn du ko xoolee ci ay élection présidentielle ñu koy xoolee ci représentativité. bi parti bi am ci assemblée nationale. Mhm, mais yow koo xam ne 2010 nga gëj a participer élection nga xëy bis ne da bëgg na candidat foo ko teg daf ñu yàpp mais nag buñ ko xeeb waaw mat a bàyyi xel parce que nga xeeb sa xel mat a bàyyi xel la buñ ko xeeb. te ku ñoŋ la ci parce que Sénégal la. Sénégal la Sénégal Sénégal bokkut ak France bokkut ak yeneen yeneen dëkk yi. Sénégal ngay gis ay nit ñoo xam ne ñoom xaar yu loolu ceeb ak diwlin jox leen ko ñu dem jaay jaay seen ngor. te Idi am na benn atu saay bu waxee nit ñi déglu ko bàyyi ci xel. déglu amul importance mais sénégalais. Hmm. moo nekk koo xam ne ni xaar lu may nga jox ko ceeb ak diwlin jox ko dix mille francs mu dem woteel la ba noppi nag fas yéene galère waat yeneen juróomi at sénégalais yi ñoo war a yeewu Ablaye gis nga sa émission bi li tax mu am solo hmm. dañu war a yee population bi hmm. xamal leen ne bañ nañu bàyyi di voter par affinité nañuy voter nit ki parce que jàpp nañ ne kii buñ ko gëmee ah, dina génnee Sénégal ci jafe-jafe yu mu ne ci programme surtout waaye bu ñu woteel nit ki parce que dafa am affinité hmm. tey jii imagine lu waa Kaolack bu ñu wotelee euh, ñoom Aliou Sow ñoom kii par affinité lañ leen wotele mm-hmm. mais benn njëriñ lañ amal mm-hmm. des fois di nga woteel sa mbokk du amul benn njëriñ nañuy mm-hmm. bañ di wotee loolu nañuy bañ di wote par affinité nañuy wote par programme ci programme programme jàngat xool euh, gëm ne ne kii bu ñu ko tegee ci bopp réew mi moom mën nañ ko génne te képp ku ñu indil ceeb am indil diwlin na ngeen jël lekk lekk leen hmm. yéen a ko moom mais boo leen demee ci mbañ gàcce yi ngeen xool gën ci yéen ngeen wateel ko à fait loolu bu ko defee rek gis nga suñu sénégalais yi mën nañoo génn ci li ñu nekkee hmm. mais fii léegi populaire politiciens yi dañuy tëdd seen kër di nelaw hmm. bàyyi ba élection yi jub ñu jékki-jékki ñëw jënd jël ay milliards tuur ko ci askan wi di leen jënd nga xëy bés ne diw nekk na président de la bu baax du la defal xam nga du la defal mhm. parce dafay naan man ba ma lay dagaan si dama laa jaayoon danga may jaayoon waaw waaw jënd naa sa ngor jënd naa sa ngor <laughs> ma doxal jërëjëf Seydina Omar Ba maa ngi lay <laughs> jaajëfal sa dëkk boo amee sax piste dawal bëlëk ma ngoog ñu ngi lay boo fa amee lampe solaire dawal bëlëk dawal bëlëk waaw merci Seydina àll bi ñoo war a yeewu ñoom ma ngoog waaw may dégg te ñoom ñooy fal saalum saalum yi ah nañuy yeewu électorat électorat bu mag moom waa Jolof nañuy yeewu mhm. waa Kajoor nañuy yeewu waa Bawol nañuy yeewu mhm. bu ñu nangu gars yi di leen jënd parce que jafe-jafe yi ngeen di dund jamono ji metti na mhm. te politicien bu fa ñëw wax ne ne mën na ko safar day wax lu ko neex mhm. jërëjëf dañ leen yee mangoog euh, borom dëkku maan Seydina Omar Ba ñu ngi lay jaajëfal fa nga bawoo di waajal émission jàkkaarloo kan wi ñu fàttali ne talaata ji di ñëw lay doon ci Walf euh, TV bu 16h jotee jàpp juróomi waxtu mbokk yi bu ko kenn wuute la xew ca Saalum ak jafe-jafe askan wa leeru jamono dina leen ko leeralal ñu jaajëfal la Seydina Omar Ba ñu bàyyi la nga tàggatoog auditeur Walfadjri ci baatu askan wi. waaw di la sant di la gërëm ah. <laughs> wax ci Saalum bëggoon naa mu jàll ci. <laughs> waaw waaw ci <laughs> ci ci ci bi waaw. Eh, eh, mooy loolu. Ah, xam naa ne eh, dana dana dana daañu ci dellusiwaat. daañu ci dellusiwaat. en tout cas ñu ngi lay sant gërëm sant bi di gërëm bu baax a baax Adama Ndiaye mi fare woon ci xarale gi ci kaddu gi seen mbokk Seydina Seydina Ba euh, di leen dig daje incha allah rabbi xibaaru benn waxtu ci kàllaama wolof jërë ngeen jëf